ginaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi mu ngi ziar ñëpp di sant ñëpp suñu ziar nag ñu ngi koy njëkk ci suñu xalifa sëriñ Babacar Sy Mansour di ko teg nuyoo bi di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo Pa Sëñ Bay Abdou mi nga xamante ni mooy léppam di sant yàlla nag bu baax ci lii nii parce que lii nii initiative bu rafet la bu am solo la kontaan nañu ndax jeunes yëpp génn nañ kon lii tey lii lu fi waaye jëf rek yow yaa ko moom jëf jël la li ñu naan jëf jël lu waay jëf yaa moom parce tey boo xoolee murit tiijaan xaadir laayeen ñëpp daje nañ fi ñëpp ñoo bokk diine ji ñun ñëpp ñoo bokk benn jëmukaay parce que lépp yàlla la tey dañoo kontaan ñun ñëpp macha allah wax dëgg yàlla ci bis bi macha allah foofu moom dañuy santaat yàlla bu baax di ñaan yàlla nag mu àgg si jàmm salaam mu julli ci ay ati ati ati ati at ci kàttanu yàlla ak màggu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parce que ki ko nasoon mooy ko ñu teg ci maam Seydi Aboubacar si te ñun fekkewun ko Tidiane si almaxtum jaar fi Serigne euh, Serigne Abdoul Aziz Al Amin jaar fi jël nag teg ko ci loxo Serigne Babacar si Mansour ñuy ñaan yàlla mu àgg si jàmm ak salaam finition bi àgg mu julli ci ay ati ati ati at ñu am ci kontante bu baax nag di ñaan yàlla laf cat rek ci jumaa ji incha allah bàyyi waat xel ci jàmm tax tey ku dugg fii sa yaram daw na sa xel sori na santaat yàlla parce que gis nañ armeel yoo xam ni man de gis naa bàmmeel boo xam ne yàlla xam na ni sama yaram daw na ba damaa tibb suuf def si lillahi wa rasuli tey ku fi amul maam am nga fi yaay am nga fi mag baa nga am fi bajjan ngay def chaque vendredi ngay def le tout nga ñëw ziar si ak ku mu mënti doon boo fi amul dara sax nga ñëw ziar si parce que armeel yi boo ziarul tey rek am nga fi place fii tey ku fi ñëw ñëwaloo fi ñi ñëwaloo fi ñu fi tëdd sa bopp nga fi ñëwal may wax nag jeunes ñu delloo seen xel ci yàlla parce que àddina amul solo àddina bi jeex na yàggul neexul ñu delloo seen xel ci yàlla te formal diine ji aktu ci diine ji diine ji lu am solo la muy jumaa ji muy sëg yi muy fépp foo dégg diine bu murit wootee na tiijaan dem bu laayeen wootee na murit dem xaadir ñëpp diine ji ñun ñëpp ko bokk ndax ñun ñëpp a jëm yàlla macha allah kontaan naa trop bégg naa lool macha allah yal leen yàlla def mag mag am ñam macha allah li mooy waa Tivaouane yëpp génn nañ jeune li ma si gën a neex mooy jeune ñëpp génn ñoom ñëpp baay seen nelaw ñëw ngir ngir rafetal Tivaouane te li nga xamante ni mooy balem sëg yi chaque année ñu ngi koy def mu nekk lu rafet nekk yiw tamit franchement wax dëgg yàlla ñëpp kontaan nañ gis nañ tamit suñu mbokk Baye Fall fii mhm. loolu day wane ne que ni murit ak tijaan ñëpp benn lañ fi wax dëgg yàlla yaa ngi gis ñi ngi nee si ginnaaw di sikar en plus di joxe café yi diine yi benn la daal wax dëgg diine yi benn naa ni daanaka kër ci këru diine ku ci woote rek say mbokk taalibe daal di ñëw euh, teew lan nga gis si nga xamante ni moom moo di euh, jumaa ji ak finition bi nga xamante ni moom lañ nekk di ko wax dëgg yàlla moom jumaa ji li sagu du wax sax sagu Tiwaawan kese sagu sagu àdduna bi yëpp la parce que ñëpp ñoo bokk ki ñu ki ñu gëm mu yonent bi alayhi salaatu wasalaam te wax dëgg yàlla Tivaouane moom ñun loolu la ñuy dund wax dëgg yàlla ci sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom la ñuy dund te wax dëgg yàlla jumaa ji nga xamante ni moom la ñuy defar di ko finir nekk na jumaa ji rafet nekk na taaru Tivaouane nekk na tamit taaru àdduna bi yëpp wax dëgg yàlla ñu kontaan si bu baax a baax a baax waaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu mbokk taalibe yëpp waaw di leen jaajëfal di sant bu baax a baax a baax ci teewaay bi gis nañ mobilisation bi liggéey bi moom du liggéeyu kenn liggéeyu ñëpp la képp ku ci taab bi rek jëfaloo kenn sa bopp nga jëfal kon loolu buñ ko yëgee <laughs> ñu xaar sax kenn kuñ ciy woo ndaxte ñun ñëpp ñoo bokk dëkk bi même buñ fi dëkkul woon sax yoon la bu ñu déggee ndigal li rek ñu ñëw jëf parce que <coughs> dëkk bi moom yaakaar naa ni lu fi waaye def rek comme li ma ko waxee sànq sa bopp nga ko defal ñu am tamit taw feexu bu baax a baax a baax a baax ñëw barkeelu parce que barab yi daanaka <coughs> ginnaaw jullit ji fi nekk ñun daanaka suñuy mbokk rek a fi nekk daanaka boo xoolee ñun suñu famille presque ñun ñëpp Tivaouane lañu nekk boo xoolee yàlla dafa dogal ñu doon ay murid yoo xamante ni dañoo dëkk Tivaouane mais suñu famille ñun <coughs> ñëpp ñu ngi Tivaouane kon ñun amuñu lu ëpp Tivaouane boo xoolee suñuy bàjjen suñuy maam suñuy ndijaay ñun ñëpp ñu ngi fii ci xabru yi kon ñun lii rek moo ñu war mënuñoo def lu raw lii ñi ni ñu sëñ Touba di ñu di ñu woowee sëñ Muntaxa Touba ñuy jëfee foofu ñun sëñ Bay Si Mansour fii nii bu ñu woowee jëf rek lañ fi mën a def. macha macha allah ay kàddu yu am am mais say biir wax nga wax ni ñun ay murit lañ tey jii ñu gis laxasaay gi macha allah ak itam maam Pastef gi nga xamante moom ngeen fi àndal. tey ji euh, dafay wane rek li nga xamante ni moom mooy euh, maanaam cohésion bi nga xamante moom moo am si entre les religions maanaam entre du ma ni sax entre les religions mais jii ñu gis yéen ngeen ñëw mobiliser wu. lu ni mel ban message nga ci mën a jàlle askan wi nga xamante ni tey ñoom ñoo seq fii Tivaouane nekk ay murit ak ay tijaan ak leneen sax yeneen tarixa yi waaw non loolu message mën na yomb parce que ñun ñëpp benn lañ gis nga ahlulaahi la ñu wax ñëpp daanaka ñoo bokk fu ñu jëm muy suñ fa suñ borom muy Serigne Touba Maalaaji Maalik keneen ak keneen ak keneen kon tey képp ku ci woote rek yow bu fekkee am nga dégg-dégg bu ndaw rek doo jëlee élan da ngay ñëw rek jëf parce que lépp benn la parce que ñoom daanaka déggoo nañ seen biir kon ñun bu ñu déggee rek ñun ñu am xàjji ak seen képp ku ci woote rek boo amee boo amee mën-mën bi bul sax jël élan ñëw rek nga jëf parce que jëfaloo ko kenn sa bopp nga koy defal te ñoom yaakaar naa ni jëfal ñu loo xamante ni war nañoo mën a dégg seen ndigal même bu dul woon Tivaouane ñun ñu nekk Tivaouane mu nekk fongole mi ñun bu ñu amee yëg-yëg bi am mën-mën bi war nañoo takk dem defi ji ko parce que ay ngëneel rek moo ci nekk. en tant que julit waaye tamit en tant que taalibe Serigne Touba. nekk fii ci Tivaouane mm-hmm. tey jii ñu war a dëgmal gàmm gi naka nga koy waajale waaw gàmm gi moom comme ni ko mbokk taalibe yëpp di waajale gàmm gi moom guddi yonent bi la ñu dëkk Tivaouane di ko fi defee amaana ñun sunu sëriñ da koy woote Touba mais moom moo ñu jox ndigal ni ñu yéen jox naa leen gant de leen ko defee Tivaouane ndaxte xam na bu baax ni ñun dañ koy dundal fii bu baax a baax a baax kon nag guddi gi moom dañuy ñaan sunu borom may ñu ñu yegg ci ak jàmm ba yeneen yu ñu ci am yëpp ak naa ñu ci am yëpp borom may ñu kattan ñu ñu motali ko ci kattanam dara ba ñoo gaar képp ku fi nekk rek yéene boo am ci gan yi suñu borom na ko kattanal may la ko ba nga mën koo jëfee ni nga xamante ni moom moom noonu nga ko bëggee ba mu demee sax nu weesu say njot barke borom Touba waaw loolu rek la ñuy ñaan ci gàmmu bi incha allah taxawaayu xalifa bi ñu tëjee loolu ak jumaa ji nga xamante ni tey mooy jumaa yi maamam ji nga gis maanaam gars yi ñu nekk ci finition yi tey ban jàngat nga am ci maanaam lu ni mel waaye tawféex man jumaa ji bu ma ko xoolee sama xol day sedd Fall barke borom Touba waaw no loolu loolu biti la fanaan waaw xam nga jumaa ji moom maanaam buñ buñ xasee wax jumaa rek jeexal nay wax quoi képp kuy jullit rek war nga cee mën a gis sa bopp man bu ma xoolee jumaa ji fierté lay doon ci man barke Serigne Touba démb rek maa ngi koy xool image di ko wan sama soxna naan ko lii murite na lool barke borom Touba loolu leer laa lay wax billaahi wallaahi taw tawféex di ñaan nag sëñ Mbaye Sy Mansour moom ba sunu borom saxal ko fi ba naal yii nii àgg ba moom mu sóob yeneen naal yoo xamante ni sunu borom da koy kàttanal ñun ñu ànd koog moom barke borom Touba Fall. billaahi yéen a boobu lañ ci am lañ trop macha allah merci a woote ndax fii sunu place la ñoo ko moom. moo tax bu fu fi dégg kuñ ci woore dañ ci sawar a ñëw buñ ñëwee gis ni ñu ci jàppale aussi ñu sawar ci li leen ci moo tax tey chaque année dañuy ñëw. te ñu ngi ñaan yàlla di ko continuer di ko continuer ba keroog ñu ñu fi indi te yàlla na yeex yàlla na yeex di ñaanal yàlla sunu xale bi sunu borom gën ko fi yàggal gën a dolli wér gi ba ba jumaa ji ñu ubbi ko ci jàmm projet yi am ci Tivaouane yëpp yëpp yëpp sunu borom sotti lu ci bari ba Tivaouane naat di wax ni nag lii nii mooy satisfaction wu euh, sëriñ ak ak ak ak njabootam parce que bu sëñ bi wootee daal di defar leen ma lii mu lay gis njaboot gi 11 heures pare nañu day tax sëñ bi xam ni njaboot gi farlu nañu pare nañu ngir taxaw lépp loo xam sëñ moom la bëgg ndaxte moom la ñu ni moom mooy ñoom ñooy sunu diggante ñoom ñoo ñuy bunt bi jëm ci sunu diine comme fa lañ bokk lu ñu wootee daal ñu ci war a taxaw def ci fulla ndaxte boo xoolee Tiwaawan ñëpp a génn euh, euh, du tijaani kese ñoo génn murit yaa ngi fi catholique yaa ngi fi te laaj Alaaji Maalik waxoon rek neewoon na Tiwaawan moom lépp moo ko ñett kon ñun benn lañu ñun xamuñu xamuñu murit xamuñu tiijaan xamuñu catholique ñëpp benn lañu moo tax tey lii bu amee rek boo gisee ñëpp ñëwandoo fi bu mu jaaxal kenn ku fi dëkkul ku fi dëkk du ngi lay sant bu baax a baax de wax ndongali rek waaw ah, ndongali nan nga gis tey ci mbalem sëñ waaw xanaa sant yàlla bu baax rek dolli sant yàlla bu baax bi ñu fekkee daaw ñu fekkewaat ko ren ah, di ñaanal xalif général Serigne Babacar Sy Mansour di sunu maam diko ñaanal naal bi mu naal yalla nak suñu borom yeggel ak jam di contane torop nak di am mbikté ci li ndax ñun suñu juddoo Tiwaawan nek ay mouride saare bu serigne Babacar ci bu Babacar ci woté kenn wuñu ci jitu yakana am xel sax nangul ñu nek fi doon ay talib serigne Touba paré serigne sëriñ Babacar Si Mansour di woté te kenn du jóg loolu am xel sax nanguko ko looloo waral nak ñu and ak suñu passef ak suñu tout tànk ànd ak dal bu baax nak ñew bok ci liggéey bi nga xamanteni daf ñoo war ndax alxuus gi ay julit ñoo fi tedd te julit julitay mbokam beneen bu ci dess ku fi amul mbokk am nga fi xarit ba am nawle te ñi fi tëdd yaakaar na ni ñak fayda tëral leen fi ñun ñi di doxit yaakaar na ni fayda ju mat bu moon tax ko continuer dund kon nan dole sante yalla bu baax dole ci di leen fàttaliku te di leen ñaanal di contane bu baax nak señ bi li nga xamna solo way bala ngay dem rek lan ngay wax ci li nga xamanteni mom modi juma di ju nga xamanteni mom moom lañ nekk ci finition yi. waaw juma ji nak xana di ci contane torop torop torop di ñaan rek yalla na yegg ak jam bon jull ci ak jam naal bii sëñ Babacar Sy Mansour di yeggale yàlla na ko suñu borom yeggale tam fekke ko ñeneen fekke ko te yàgg cee julli mu nekk mbégte moo xam te ni mbégteem jullit yëpp la rawatina nag ku dëkk waan moom sunu sag la dañ koy xool rek di kontaan waaw alhamdulilah. na doy mhm. mhm. mhm. mooy ñu delluwaat ci ak taalibe rek ak taalibe rek li ci des lépp ak ñàkk taalibe ak ñàkk yar rek. yaakaar naa ne Tivaouane gii ñu juddoo ñu nekk fi bu ngeen xamee lu bëri yaakaar lu bari yooyu néew na lu fi am lu ko waral nag moom mooy nit ñi ñàkk delluwaat gi ñàkk delluwaat ci taalibe bi yaru daara bi yar gone yi loolu loolu loolu loolu moo nu manqué ba tax xale yi di roy yeneen i jëf joo xam te ni du suñ ay du suñ ay jikko du suñ ay valeur muy lu ñaaw muy lu bon mooy loo xam ne doomu aadama sax xalaatu ko loolu nag na ci mag ñi nit ñi yeeyaat seen bopp yeeraat gone yi delloowaat leen daara yi ndax yakarna ni yarub daara yarub talibé rek moy li am solo soko nekké di nga mëna nekk foo ci aduna sa xol dina rafet di nga mëna dimbalé té mbirum ray mom sax du nekk sam xel kon nak loolu ñoo ngi ñaan suñu borom yalla na fi yam di ñaan nit suñu borom nit ñu ñaanal ñu ba xalé yi seen xel baña baña bañ nekkati sax ci lu ak loolu jere ngeen jëf waay yalla bu baax jul seenante bi alayhi salatu wassalam di ñaan si doole Serigne Bamba di ñaan sëñ sëñ muntaha yalla na fi yag lool tande wër di ñaan sëñ Mbaye Mansour yalla na fi yag lool ba naalu ji mu saa borom def ba yeggal ko ci jàmm ba inauguré ko ci katanu yalla mais balam Sëg mi mom sak ane dañi am initiative ma pour ñew quoi ndax dafa dañ ci yegg suñu bop daan sak ane sa yu ko tewé dañi ñew mourid tidiane khadir lay ñep dañi ñew dafa wane ni rek xadara bi ak lepp ben la macha allah lépp benn la maanaam Sénégal fii nii lépp la ndax manam kenn naxu sa bop quoi lu way def rek sa bop nga ko defal quoi motax manam mourid murit tidiane tijaan yep sa yu ñu ni magal gi tidiane yeeg ñep dem magal gi gàmm gi tijaan yeeg murid yi ñëpp si digg maanaam année année bu ne si bayu ko xaar moo tax nag ñu ñëw bàyyi suñuy te yëpp ñëw si bayu sëg bi waaw ñu ngi sant yàlla baax di julli sant bi di ñaanal suñu Muntaxa di ñaanal Si Mansour yàlla na defal ko jàmm may ko wér ba mu yeggale jumaa ji ba intégré ko si kattanu yàlla nga xamante ni mooy Alxaaji Sall président section Tivaouane bu daayiratul Muxtafina ñu ko fekk fii ci mbayum sëg yi Alxaaji lan ngay euh, mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen xam naa moom kàddu yi du kàddu dara lu kàddu yi sant ak ngërëm di ko jiital ci suñu xalifa suñu baab suñu Babacar Sy Mansour euh, di ko ñaanal yàlla gudd fan gu ànd ak wér ak ay rakkam Cheikh El Hadj Malick Maodo ak seen rakk ji nga xamante ni bii mu ngi taxaw taxawaay bi fa tabarakallah suñu Babacar Sy Abdoul Aziz ak mboolem njabootu Seydi Hadj Malick ah ñu teew fi nag ci euh, ndigalul Cheikh Mouhamadou Moustapha Sy Al Amin ci turu dayatul muxtafin bi asar al abay wal ajdad fa tabarakallahu mu nek liggéey bo xamanteni bi na nag na naa min nagn ko da xal xuus mom yaakaar na ne mak ñi ngay deg ci Seydi Hadji malik mu xaddam yeeg tabarakallahu ngeunk yoy nga xamanteni bi mawdo mo len defar ci bari ñi ngi teud fi ci amel yi fa tabarakallahu kon buñu jappé diko defar diko nettoyer kep képp kuy jullit rek bu ko deggé war nga fe rot ci pour taasu ci seen barke macha allah waaw mi ngi noonu macha allah képp kuy jullit rek war na fee ñëw incha allah pour taas fi barke waaye tamit ku ko xam-xam ne ci muxtafina la bokk te muxtafina ku ko wax wax Serigne Moustapha Sy ibnu al amin moom i tamit mu nit koo xamante ni kuy sàmm ay ndigle la ak ndigale kilifaam tabarakallahu alhaaji alin ñu ngi lay ziyaara bu baax a baax di la jox sa wàcc waaye di wax ni tamit xam naa ne muxtafina gépp ñu ngi fi teew tey waaw muxtafina gépp ñu ngi fi teew ndax daal muxtafin ci ndigal rek la ñuy dox Serigne Abdou Aziz al amin moo ñu waxoon nañu déglu leen Serigne Moustapha mu déglu ma sa Mamadou Moustapha nag taxawaayam mooy lu ay kilifaam sumb mu sumbulu leen ko lu ay kilifaam santaane mu jiitu ca jabal ci ay njabootam loolu moo waral tey jii képp ku njabootu muxtafin rek yaa ngi ci biir eh, liggéey bi fa tabarakallahu ndax ndenkaane boobu nga xamante ne bi Sëriñ Abdou Aziz Al Amin moo ñu ko dénk